xëyul defar àdduna ci benn fan nañ waxante dëgg li yàlla mënut wala li yàlla defut ci doxalin ci waxin xam nga comme des fois nit ñi tam ñu interprète yàlla lu mu mënut amut mais lu mu defut ci benn fan def ko ci ñaari fan def ko ci ñetti fan def ko ci ñeenti fan bu ko nit bëggee def ci benn fan mën ta nekk. lu tax daaw leen ko waxee nii. non ñu ko déedéet non c'est-à-dire nit ñi. discours yaa ngi changé wu de. Ah, c'est-à-dire dégg-dégg non defal ndànk sénégalais yi dégg-dégg hmm. dañ ne dañ ñu fal pour juróomi at. juróomi at yi. nañu fexe ba li ñuy fal ñu tegu ca raay ba dañuy joyanti. mais dëgg dëgg jubbanti mais fàttewu leen dëgg dëgg li tax sénégalais yi yàkkamte woon. yee kaay ma wax nag man xaw man de xaw ma ko ko fàtte. denrée de première nécessité ma lépp dina ñëw. liggéey pour xale yi waaw lépp dina ñëw. loolu lañ bëgg nit ñi dinañ tey de. parce que nag àdduna. ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata app fii ba ban app. ma ne man de bu doon sama sago fii ak juróomi at yu ñuy jox. Mm. wala yi ñuy jox le président Diomaye ak son premier ministre. Mm. nañ teg lépp ci raay bi jarul yàqamti jarul xaar pression parce que nag li yàqu li ko bëgg a defar du mën a yomb fukki ak lu ci mën a yàqu ak milliards yi ñu wax ne lekk nag mais bu dul dara sax gox bi opération gox bi nga teg ne gars yi du ñu goxi ñu jëlaat yooyu dugal ko ci yenn secteurs yu ñu mën a ànd war a goxi ñan fi ànd ngeen ak ñoo xam ne ay rapport waxal kam kan kan déjà seen chef de cabinet kan euh, Mary Teuw Niane waaw dégg nañ ko ci ay rapport dégg nañ ko ci ay rapport mm. waa léegi dañuy toog ba rapport yooyu yëpp jeex bañu liñ ko épinglé amu ci wala am na ci te waxuñ ma wax la man sama waxu démb mooy sama waxu tey te fii public SN defe naa ne ñëpp yàgg nañ ma fi dama ne képp ku def lo warta def nga lekk alalu réew mi nga yàq wala nga taal nañ def li war ci yoon. ak fo mën a jóge mënti jóge laa wax te ay sa tudduma bàyyi ma fen bi may wax fii nii doomu Ousmane Sonko sax bu defee lu mu war def na yoon def ci man gëm. léegi opération gox bi daal dañoo war li ngeen di di gox yi. non amul temps waaw na d'accord li ñu dégloonte dama ne. Mhm. le temps bi ngeen di jël di gox boobu ba tey rapport ku sàcc dangay ngay fay ku ni nangam ni jël xaalis dangay delloo. Mhm. temps boobu mënoo leen woon ko jël ngeen concentré si dund bi cher bi. Mhm. mu wàññee ko au moins. ngeen teg un premier pas mais hmm. ba ni ni ni ni ni ni da ngeen yokko ko ki. waaw dañuy koki ko ki c'est normal. ci li baxagul neex de heñagul neex. ñaari weer muñ a bax de. ah waaw da ngeen waxon yeen do ngeen ñoo toog wañ déet nañ ne bu ñu ñëwee. ko woon ñu fal ñu pour juróomi at ñu pour ñaari weer. mais on n'a pas le temps aussi. ñun amuñu temps ñun askan amuñu temps. waaw yéen temps. ñi bëggul am temps amuñu. temps non ñun ñëpp amuñu déedéet déedéet ñun am nañ temps man de am naa temps waaw yow yow si ñoom nga bokk bin bin rek si ñoom nga bokk déedéet du ci ñun la bokk déglu ma déedéet déedéet déedéet déedéet xam nga lu <laughs> du jaay ñu ngi door am temps xam nga dara changé wul maa sorko sorko bi ñu bëgg a def man mënta nekk na nit ñi dal li ñu yónni dañoo yónni yàqamti ñu xam nañ ne dañoo yónni te bu ñu fàtte ne ñi ñu faloon ñu ngi taxaw di ñu xaar kon xam nañ la la fa bàyyi ñee wala li fi jëlee ñeel du ñu fi bàyyi mais du tere nag lépp looy da nga koy ne molo molo. bu ngeen toppee gox gox gox. ma ne gox gox bi ci la de. parce que loolu li ñuy déedéet waaw bu ñu goxee tamit te fekk ñee goxi nañ ñu ñu teg ci kaw table bi ne ñii lañ leen doon toppee mu ngi nii goxi nañ ko léegi nag dinañ ko mën a jël dugal ko ci ndundu mi wala dinañ ko mën a jël def ko ci euh, liggéey bi euh, travail des jeunes bi dinañ ko jël dugal ko ci infrastructure comme santé bi dinañ ko jël def ko ci nangam ak nangam nangam nangam loolu mooy tax la tax sénégalais yi wóolu woon ñu xam ne la waroon def def nañ ko mm-hmm. mais xëy suba rek nañ yëlu ne cëlmet rek na lépp sa lépp leer mënta nekk dañuy def ndànk kon daal nañu muñ deux trois ans quatre ans ah kon le deuxième mandat da lañ xaar non mu ñu wax ni enragé wul sañ ñu wax man de damay solution non xam nga solution it day ànd ak tekk tey parce que gis nga nag am na ñoo xam ne xam nga ne xam nga lu yàqal waaw man ah, waaw xanaa ma léegi moom Sonko am na xalaat moo nekk ci yëf yi moom li mu gisee ak man li ma gisee bokkul xam nga moo téye yëf yi man téyewu ma yaa ngi séentu jaañ waaw wàññi dund bi waxuma sax ñu téye ko non dañ ko war a def mooy dëgg mais ak pression banque mondiale waaw looloo tax nag ma ne nag loolu yëm na boo ci sànjaafu da ngay def ndànk aussi tamit bu ñu fàtte ne ba max nit ki gis nga sénégalais yi xam nga lenn dinaa la ko mun nañ la wutal fas bu euh, euh, yaawu biir mais duñ la ko góoble duñ la góoble moom ah kon jeex na ah déedéet waaw kay kon duñ la ko nag la waaw duñ duñ lay góoble mooy ñuy liggéey di fay suñuy impôt def suñu war li war a def mm-hmm. di di la jox xaalis voilà yow yaay xool nag ci fan nga def waaw jeex na nag léegi nag fañ koy war a def nag mm-hmm. bu ñu fàtte ne ñun sax ba léegi budget bi ñu voté woon pour ñu ko fi bàyyi ñoo ko fi bàyyi de kon ñun ba léegi continuité Mamadou Moustapha ba se bu am doole la la fi yaa ko wax de. moo ko wax yaa ko wax de. balaa ñu toog lu ñu gis. lu ñu gis daal mooy nañu goqi la fu dugg yow yow balaay goqi yow déggoo fi waa ji ma dégg ne cinquante trois milliards nu mu di euh, waaye Pape du Sarr dama dégg liir ko ci journaux yi liir ko ci kii yi nu mu tuddati. <laughs> lu mu def lii. déedéet déedéet déedéet. liir ko rek de ah bokkul de non non non loolu c'est non hmm. dama bokkul ak lu may wax secret défense bokkul nag. dama ne hmm. li ñu cinquante 53 milliards mu ne financé na ko ñoom financé woon yëpp dee nañ ci géej. Hmm. kon ñeen financé woon yëpp 53 milliards dañoo dee nii. ci géej. ah ñooñu duñ gox ah. ku leen ko ku leen ko waaw kon léegi ñoom ñi dee naal kon ñi dee ñoo la ñu mbubboon ñoo lekk xaalis ba nit ñi ñoo dëgër fit te ragal yàlla te ñeme yàlla du moins ña dee ñëpp nga jóolu leen xoolal sax yow xalaatal ñi dee lekkuñu lekkaanuñ wala bu dee ñëpp it xanaa du ñëppay deewandoo 53 milliards ñaata million wala ñaata personne la mën a financé ah day ne dama ne li ma wax te wax. loolu dafa ne daf ko dégg. dañ ko dégg te ñu ngi koy ñu ngi koy topp. Hmm. léegi yéen it non bokkul bokkul déedéet dama ne. lolu lu ñu ba publier da fu ñu gis ne ko dinañ ci def wax liñu ñu publier waaw bu ñu fàtte nag. pour des comptes fi la nek ah. liñu ñuy beut fi la nek comme fi dutagoon baram ku leer ne doot na ko baaram cour des comptes. ah yow ñu fi di wax ka ñëpp bu gene a. ministre yi. tudduma ci kenn ko la. les anciens tudd nañ fi lu mot 11 ministres rapport cour des comptes suñu milliards Covid 19 bi. ci nguur ak président Macky Sall.